ñuy nuyu le directeur général de l'ANAMO di nuy chef de service yi nga xam ne ñoo fi daje yëpp nga xam ne di yëngu ci lii di yëngu waa di nuyu waa FIS di nuyu waa ànd taxaw làmb euh, sama intervention du du gudd di nuyu également la directeur des opérations monsieur Mamadou Cissé ici présent nga xam ne daanaka ci turam laay waxee di wax ni rek dama dégg sànq bi ma déggee wax lu am solo yi nga xam ni waa ak lu làmb yëpp yëkkati nañ ko. di ko teg ci ki nga xamante ni moom mooy sunu kilifa muy la directeur général de l'ANAMO El Hadj Malick Mbaye dama am kontante bu baax a baax mais bi ma amee kontante dama ne diggante bii de tey ñaar a ko lal wareef moom moo ko lal ak kóllëre wareef bi ko lal moom mooy directeur général de l'ANAMO lii muy def mu jëm ci wàllu làmb pour wutal leen insertion sociale wutal leen insertion ëllëg day lu ko war ci digganteem ak président de la république mi ko investir mission bi te mu xam ko di ko doxe mais kóllëre rax ci muy seen diggante ak ñoom Cees nag day dëkk boo xamante ni dafa neex a sosoo xaritoo mais dafa naqaree téye xaritoo xam nga tey ñi fi jël kàddu ñëpp boo déggee li ñu wax dañuy wax ni yéen waa làmb fu ngeen war a dem yëgle dem ngeen fa yëgle ku ngeen war a waxtaan waxtaan ngeen moomu mais bi ngeen demee ba seen bis bi tey taxaw Maodo ngeen gis. loolu nekk lu am solo lu ñu war a bàyyi xel parce que li tax mu nekk lu ñu war a bàyyi xel tey jii dama jàpp ne xanaa ku yëgul mais képp ku ñu yëgal te nga nekk ci dëkk bi te jot may la ko yuusu wax na ko sànq tey sa présence fii rek la jaadu woon ndax yéen ku leen xeet xeebu leen seen bopp gis nañu élection bu jotee ñoo ñooñu ngeen wër di yëgle ci dëkk bi yëpp yéenay doon seen i gardikoor ku ci nekk dina leen soxla ku ci nekk dina leen seet kon tey jaadu woon na Cees yëpp ne fi ñun Cees nag dama seetlu ne. bis yu am solo yi bu jotee ñaare daal bu ñu wooyee nit ñi duñ leen gis ci lu bari waaye ndokk ba nga xamante ni Maodo Malick mu ngi fi xam seen diggante ak waa Thiès xam li ko war seen diggante yéen ba seen bis bi mu ñëw taxaw ci am ci taxawaay bi ci war anamoo nag day loo xamante ni dafa am solo dinaa indi tuuti historique xam nga lii ñuy def naan ay dañuy lutter contre le chômage sous emploi président Ablaye Wade keroog 2010 décret 456 2010 du 8 février 2010 bi muy institué ANAMO dafa laajoon booba di wër di campagne di wax ne ana ñi liggéeyul nit ñi di yëkkat seen loxo mu ne dina créer benn structure bi nga xamante ni dafay régler problème mu emploi au Sénégal bi fi Ablaye Wade di jógee ñaari maison de l'outil moo fi am muy la maison de l'outil de la Solida Dakar ak maison de l'outil bi nekk Touba nga xam ne Mor Seck moo doon DG ma wax leen ci réalisation président Macky Sall. keroog ba mu ko dénkee El Hadj Malick Mbaye te ba mu ko koy dénk ñi xam anamoo ci Sénégal boo compté woon mille personnes dix xamuñu bi mu ko koy dénk diggante moom ak tey jii ñoo ngi ci seize maisons de l'outil fonctionnelles dans le pays diggante boobu ak ni loolu nag xam vision ak bëgg liggéey ak bëgg réewam moom moo tax ñu yegg may préciser na ñun waa Thiès souvent da ngay dégg nit ñuy wax darmalgaam yuusu naan noo Thiès amul maison de l'outil sur les seize maisons de l'outil ñu defar cinq maisons de l'outil yëpp ñu ngi dans la région de Thiès muy la maison de l'outil de Thiénaba bi nga xamante ni maison de l'outil thème parce que mooy première maison de l'outil d'ailleurs bi nga xamante ni entièrement financée par l'État du Sénégal maison de l'outil bu Mekhe ci région de Thiès la nekk maison de l'outil bu Mbour région de Thiès la nekk mais également maison de l'outil bu Ngexoox région de Thiès la nekk kon boo xoolee daanaka li ëpp ci maison de l'outil c'est concentré la région de Thiès pour na ku ko wax ça fait plus de cinq ans yoo xamante ni ñu ngi demande aux collectivité parce que mairie yi lañ ko déposé parce que ñoom ñoo war territoire c'est pas la mairie de ville yi déposé nañu fu ñu nekk pour ñu mën a am fu ñu tabax maison de lutte DG dina ci delsi découragé wu ci parce que bi mu demee ba ci biir dañu man dina ma jaral ma wutal sama bopp fu ma ko def def fa maison de lutte pour Thiès gis ko kon ab région boo fa defee cinq maisons de lutte région boobu bàyyiwoo leen en rade léegi nag pour l'insertion des lutteurs ANAMO day structure boo xamante ni bokkul ak structure formation professionnelle sur la démarche ak orientation ñun dafa am ñeent yu ñuy doxale yoo xamante ni amul benn structure de l'État bu koy doxale ci wàllu formation ak insertion mooy ñu wutal la cadre d'exercice jox la compétence technique jox la banque à outils bu ñu paree ñu dem à l'incubation d'entreprise à l'incubation ANAMO dafa ñëw fekk nit ñi di liggéey parce que nit man ngaa am xam-xam bu baax te doo am foo liggéeyee mu tabax maison de l'outil mu ne képp koo xamante ni da ngaa am xam-xam bëgg a liggéey te amoo foo liggéey ñëwal ci maison de yi la ngay liggéey bu fa amee nga liggéey ci muy benn mu ne beneen bi ci des mooy yéen ñi nga xamante ni da ngeen a am métier ba pare mais seen métier nekku leen ci professionnel ñëw leen ñu renforcer leen ba ngeen gën a nekk professionnel muy compétence beneen bi stop encore mooy banque à outils mais ku nee xam ni banque à outils banque liñ ci xamoon mooy fu ñuy joxe xaalis mais ANAMO dafay ñëw ci maison de l'outil yi def benn banque boo xamante ni yow bi bëgg a liggéey soo amee xam-xam ba pare te amoo jumtuwaay yoo liggéey soo ñëwee ñu abal la ay jumtuwaay nga dem liggéey boo ñëwee delloo siwaat ko muy banque à outils bi ci des itam mooy incubation ñi accompagner la ba nga xamante ni li ngay liggéey dina mën a ñoom kon yaakaar naa ni lu mel noonu su amee ci réew mi bërki démb DG wax na ko ba nga xam ni formé nañ ci lu toll ak 15000 personnes. yaakaar naa ni ANAMO mu ngi doxal li nga xamante ni moom la war a doxal yéen mbër yi nag ci loolu yaakaar naa ni ci lañ leen di woo beneen bi stop mooy euh, DG ñi nga xamante ni leen dañuy wax naan taux de chômage bi dafa rëy dem ba 48 pour cent mais nit ki yéen ñaata nit ñoo fi yoon liggéey ci biir dëkk bi te kenn mosu leen a enquête wala mu fekk leen seen bërëbu liggéeyukaay recensé leen te pourtant ñooñu wàññiwuñu leen. ñaata nit lañ fi formé ba pare ñu jël seen i jumtuwaay ànd dem di liggéey yi te xëj na amaane wàññiwu ñu leen kon yaakaar naa bu ñu ñëwee taxa tey taxaw di wax naan ay taux de chômage ay mbiri caaxaan la nit ki nag dafa am ñaari façon liggéey emploi formel ak emploi non formel am na ñu nga xam ne ñi ngi liggéey seen bopp métier lañ yor di ca am dara si di jaxate bii wax nañ ko fi léegi structure la yor di ca liggéey te kooku état employé yi kon nag fi ñuy daanele mooy lii na am suivi gars yi ma di leen lancer benn appel saa soo xamante ni jàppante nga ak doomu aadama dina am ñaar ñu ñëw taxaw bi dikk taxaw mooy ka nga woowoon ci jàppante ba te nanguwu ko dina taxaw di seet yaa ki nga àndal fu ngeen di mujj ki nga xamante nii nag danga dafa ànd ak yow jàpp ak yow day ñaan yàlla jàpp bi wéy moo tax président dama leen di ñaan lii na am suivi na am suivi parce que li tax muy am suivi président fils li tax Bamba mu am suivi mu am solo mooy bi ngeen wootee kenn dafa ñëwul Maodo laxasaayu ànd ak yéen ñi dikkul ñoom ñoo xam raison yi tax dikkul yuusu kon ki dikk na ngeen ko sagale kóllëre lu ngeen sos na dem parce que lu ngeen sos na dem mooy tax ëllëg moom ak layam day yomb ëllëg dina tax mu kontaan loolu am solo waaye bu fekkee dañ dañ koo tay su dee dañ ko wax tey pare ci tey ku nekk waraat demaat ñu naan la fa amoon amoon na fi daan na am dana tax ña dikkul woon bërki démb ak bërkaati démb am dëgg loolu bu leen ko nangu seen digganteeg Maodo na sax na sax ba lu ngeen sos ren bu déwénee ngeen sos lu ko ëpp jërë ngeen def lay nuyu monsieur le directeur général ANAMO Maodo Malick May maa ngi lay nuyu monsieur Khadim Bamba Sam maa ngi lay nuyu aussi. waaw euh, di di di fi teew ci turu directeur. de l'emploi monsieur Modou Fall donc ñun ñu ngi dépendre ci ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat donc euh, ñun waruñu fi sax jël kàddu donc su su fi directeur général ANAMO Maodo Malick Mbaye teewee donc ci ñetti fànn benn bi sama mag la donc xamante nañu lu yàgg boobu maa ngi nekk étudiant may dajeeg moom mu may xelal di ma conseiller ci lu bëri xëy na moom sax fàtte na ne Castors waaw donc foofu sama mag la donc lool rek tax na dama ko war a delloo kàddu bi beneen di aussi tey ñu cërale ko bés bi donc loolu aussi tamit war na tax ma waruma fi jël kàddu beneen bi aussi ñu nekk ci même ministère mu nekk fa directeur donc man ma nekk chef de service donc loolu war na tax aussi mi waruma jël kàddu donc mais comme insisté nañu insisté nañu donc naa jël kàddu rek donc wax dis dispositif yi direction de l'emploi teg pour quand même yombal insertion lutteurs yi donc signé nañu benn convention de partenariat ak FIS bi euh, Bamba Mboup jiite donc Bamba Mboup aussi tamit nekk nit bu baax nit boo xam ni taxawaayam lépp mooy nan laay fexee ba mbër yi quand am métier mais aussi am xëy donc ba looloo tax euh, ñun chaque fois mu ngi sunu direction mu ngi gisanteeg directeur ñuy teg yan stratégie la teg pour quand mbër yi ñuy former suñ leen former ba pare seen insertion mën a gaaw donc loolu moo tax ñun ñu jàpp ni nit ñi doon naan sax mbër bu amul bu amagul combat wala combat wam bëriwul wala mais man dama jàpp ni mbër yëpp ñoo war a am formation professionnelle parce que nit ki aussi tamit soo nekkee ci lenn. Euh, soo demee ba bëgg investir quand su fekkee ni yow am nga formation mën nga métier boobu quand nga investir fa day day yomb parce que da ngay xam métier bi donc man ma jàpp ni mbër yëpp ñoo war a am métier du rek ñu nga xam ne amuñu combat yu bëree wala waaw donc mbër yëpp war a am métier beneen bi ci topp direction de l'emploi moom la ñu dénk lépp luy wàllu insertion ci réew mi donc ñun sunu sunu domaine du jigéen ñi du xale yi mais képp koo xam ne day wut liggéey rek ñun dañ la war a quand jàppale accompagner la pour sa liggéey yomb. Euh, ci insertion am na dispositif yu direction de l'emploi teg am na bun naan ci convention nationale état emploi convention état emploi national employeur dañuy am ay partenariat ak entreprise privée yi ñoom ñu accepté di nu recruter ay jeunes yu am formation euh, ñun ñuy fay parti ci salaire bi ñoom ñuy fay parti ci salaire et convention boobu directeur général moo Modou Fall def directeur de de l'emploi Modou Fall dafa ni nu nanu fexe ba entreprise ñu nuy signer partenaire na ci am ñoo xam ni euh, suñu signé ak moom daan fa mën a insérer métier yi nga xam ni euh, mbër yi formation boobu la ñuy def donc instriction boobu jox nan jox nanu ko te ñu ngi ci liggéey bu baax waa beneen bi aussi tamit soo defee formation ba pare effectivement soxla nga emploi salarié mais am na ñoo xam ni dañuy soxla entrepreneuriat dañ naan man mii kat dama bëgg demal ak sama bopp ñooñu aussi tamit direction de l'emploi taxaw na pour former leen ci entrepreneuriat esprit entrepreneuriat mais aussi dimbale leen ñu mën a créer seen entreprise mais aussi taxawal seen entreprise du créer rek mais taxawal mais suñ ko taxawalee ba pare direction de l'emploi dana leen former ci ay technique de gestion cest à ci technique de vente nan ngay fexee ba yow li ngay li ngay produire li ngay def nga mën ko jaay mais aussi dan la fex dan la former ci nan ngay fexee ba saxanal sa sakanal yow xaalis bi ngay bi ngay rëkki bi ngay am mooy éducation financière donc Euh, direction de l'emploi teg na ay dispositif yu bëri yoo xam ni dana yombal quand même après seen formation dana yombal seen seen insertion donc kàddu yooyu laa ci bëggoon wax euh, li des nag ma bàyyi kook directeur général ANAMO muy sunu kilifa mu mu eggale il est na ko lool moom moo fi nar na teew mais ci suba gi la xëy am ngànt ci la ma informé ne ma man ma teewal ko man ma nekk agent au niveau de la direction de l'horticulture ingénieur la des traveau agricoles région de Thiès ferme agricole yi fi nekk souvent man maa fi intervenir fi may waxee yow nii ci euh, Tawafal laa jóge ci benn projet agricole booyante bi xam naa bari nañu ko xam ñoom ñuy yëngatu ci melon ak pastèque mi ngi fii Tawafal man maa yore lépp looyante bi mooy programme technique bi ci mbayam melon ak pastèque bi foofu bari na ay form ay ay producteurs yoo xamante bi man maa leen formé au niveau de la région de Thiès doomu Thiès laa tamit ah, teewaay bi am na solo lool bon li ma ciy wax mooy que ne mbër yi suñ leen jàppalee ñu am formation en tout cas ci da da sunu domaine dans le domaine horticole dina nekk lu am solo parce que gis naa ne ñu ñu ñu am détermination la ñu sawar lanu ku leen jox xam-xam yaakaar naa ci benn secteur orienté leen ci benn secteur jox leen xam-xam am naa yaakaar na dinañ ci def ay résultats yu am solo direction de l'horticulture nag dafay former ay ndaw ci domaine horticole lépp lu dafa jëm ci maraîchage direction de l'horticulture dafay former ay ndaw ñuy bay mbayam mbay ñuy bay euh, pomme de terre soble melon pastèque lépp lu lépp lépp loin lu comme légume la direction de l'horticulture da ciy former ay ndaw ban euh, ban dem ba ñuy demal seen bopp formé wu ci rek quoi indi bi dañ koo fekk amul métier ñu formé ko ci am na sax ay moodu moodu yu ñu fii ñoo ñu formé leen ba dematunu bari na ci bari na ay moodu moodu yooyu dañoo jógee seen bitim réew ñoo ñu formé leen ba tey dañ ñu ngi demal seen bopp ay étudian yooyante bi dañ leen a formé tey ñu ngi liggéeyal seen bopp di demal seen bopp ba tax na tey ñun pare nañ pour defal formation direction de l'horticulture pare nañ pour defal formation en tout cas dans le domaine de l'horticulture ak mbëri bu formation boobu weesoo tamit pare na pour jàppale leen ci wàllu intrant intrant nag mooy aw jiw ak engrais yi nga xamante ni moom moo lay gunge pour nga mën a bay direction de l'horticulture tamit muy docteur Macoumba Diouf mi ma yónni nee na moom pare na aussi pour defal leen audience ak ministre bi ngeen am audience ak ministre bi loolu tamit docteur mu Diouf wax na ma ma wax leen ko loolu dina ci jàpp comme ça euh, lépp pour gën a yaatal euh, bu ngeen jàpp bu ngeen demee bu ngeen amee euh, ak ministre bi audience dina loolu lépp dina tax affaire bi gën a yaatu dina ay ay opportunité gën a mën a am. ministre de l'agriculture comme ça ñu am ngeen am mën a am audience ak moom loolu docteur Macoumba Diouf bokk na ci li nga xamante ni moom la ma moom la ma moom la ma wax pour ma wax leen ko waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm ok merci beaucoup